vraiment lool mom lu rafet la parce que Mardi Gras da nga ciy gis sax ciosan culture sénégalaise da ciy feeñ bu baax baax vraiment nice na trop nice na trop wax deug yàlla. même bu nekul culture sénégalaise sax da ngay gis li nga xamantene ñom amna ay avocat si amna ay avocat amna ay avocat ay sage femme ay ay infirmière ñu ne wax deug yàlla ay militaire ñu ne ñoo ciy feeñ. ay hôtesse de l'air ay hôtesse de l'air aussi tamit ñu ngi ci. deug yàlla fu ne lañuy génné ñom xale yi fu ne lañ leen seen parents yi di génné wax deug yàlla. maa di giraal moom vraiment deug yalla man de rafetou nako gis na ci sama bop baax a baax a baax a donc duñ def luddul dem jël quelques xalé ñu xol ñom nak lañ gisee Mardi Gras bi ak lan motax ñu solo ñi solo militaire wala ñi solo avocat est-ce que dafa nek lo xamanteni métier bu leen neex la. wala dafa nek lo xamanteni juste dañ ko. si ni noo tudd. Maam sa Maam Boussa nga tudd. ko dëkk. kañ la Maguette Sène. kañ la gis ah, na ñu ngi lay seetaan dégg nga tey lan nga sañ sa ñu la senale senale nga sañ sa da nga bëgg liggéey ah waxal bu baax ko ma mën la dégg da nga bëgg a liggéey courant lu tax nga bëgg liggéey courant papa sa papa moo tax sa papa fan lay liggéeyee Senelec Senelec lay liggéeyee loolu moo tax nga bëgg liggéey courant très bien bo magge yalla nga melni sa papa. papa yaa ci si jamu. ci jam si jamu. papa papa. papa nga tudd tay lan mo xew. Hmm? tay lan mo xew. xew. wa dama dem ñibbi. ah déedéet do ñibi yow ma di gra nga ñu ma ma di gëraa ma ñu kan mo la solo li. hein kan mo la solo li. yaa ci si dama bëgg nga wax bu baax ndax ma dégg la dégg kan moo la maquillage sama ya? saya mau moo maquillage rafet na ate waneel sa sañ lan moo tax nga sol lii dama kontaan da nga kontaan lan moo xew Madi Gara Madi Gara moo xew xoolal fii Madi Gara moo xew moo nga sol lii tey léegi yow boo màggee loo bëgg a yow bëgg nga bëgg nga bëgg wax ma ko ne bëgg doon policier waa di dara bi ñoo tax wax la dégg doo maa ngi agent bu mag ngay doon xam nga si wala Faye Sall waaw ma génn mu génn wala Faye Sall ma génn mu génn waaw xëy na faalu koor ñëw defar kan moo la sañ moo la sañ waaw xoolal fii jege si ñu tey ci diwaanu Saara quartier Saara ñu ngi ci jardin euh, jardin d'enfants bi nga xamante ni moo tudd Cillo Kër Cillo ñu ñu suñu tata bu ñaawal bi nga xamante ni moom moo moom moo yor jardin bi ñu fas yéene waxtaan ak moom bu baax a baax a baax laaj ko li nga xamante ni mooy Mardi Gras initiative bu Mardi Gras ak euh, bàyyi ñu jox ko mu nuyoo. asalaamaaleykum ni ngeen de bàyyi yéen a ngi fi jàmm alhamdulilah bienvenue à Kër Thilo garderie d'enfants Kër Thilo nekk fii fi Saare Lo 807 waaw comme ni nga ko waxee rek Mardi Gras moom ñun fête des déguisements nañ koy tuddee mm-hmm. parce que puisque c'est une école mixte kon pratiquement soo waxee Mardi Gras dafay am ay parents yoo xam ne day am réticence parce que dañuy naan feetu catholique la. moo tax ñun on l'appelle fête des déguisements. parce que ce jour là comme tey di nga gis façon déguisement bu nekk xale dañuy déguisé wu en policier tey am nañu hôtesse de l'air ay coutume njaago coutume séeréer pët et cetera. Mhm. loolu daal mooy Mardi Gras daal lu ko gën lu ko gën euh, koy waa soxal daal mooy déguisement wu xale yi waaw xale yi daal dañuy déguisé wu waaw la fête des déguisements. Ah, xale yi dañuy déguisé wu déguisement yu rafet macha allah. Mm-hmm. dañ ciy gis lu ne culture njaago culture soose séeréer lébu. Mm-hmm. lépp lañ ciy gis. wax dëgg yàlla rafet na trop mais yow tata yow xale yi ni ngay nekkee ak ñoom am benn jafe-jafe parce que yor xale dafa metti de. waaw dafa metti mais habitude la rek. ak gëm-gëm. parce que pratiquement mun naa wax ni. waaw man moom xale yi dañoo bokk ci man waaw dañoo bokk ci man ba nga xam ne waaw suñu bokkee ci yow yow da ngay nekk rek seen seen jaam waa nekk rek seen seen lu leen neex rek soo nekkee su leen nepp dañ koy muñal loo xam ne xamul dara kon da nga koy moomin la quoi da nga koy muñal nekk si di ko éduqué waale en même temps parce que ku ne xam ne kër ci lo mhm. ah, nekkul gàddari nii rek dañuy éduqué waale xale yi surtout éducation religieuse aussi loolu moom Kër Thilo moom macha allah dinañ jàngal xale yi dinañ yar xale yi nañ leen yërëm mais nañ leen éduquer éducation religieuse ku xam Kër Thilo xamee ko loolu.

kon kon kër ci la moom amul moroom ndaxte parent bi nga xamante ni day indi doomam indi ko ci école bi dénkaane ko presque xale bi fii lay yendu kon benn éducation wala benn jikko bu nekk ci moom rek su doolee ko ci loo xamante ne moom la fi indi woon rek parent bi da koy remarqué parce que yéen moom sàmm ngeen loolu moom vraiment moo gën a tuuti fii li ñuy defal ci xale yi lu ma la wax déggoo mel ne ñun ñooy jaamu xale yi nous sommes au service de enfants kon boog lu ñu war a def mooy protéger leen sàmm leen seen côté set parce que ñenn xale ce am na lu gën a grave loo xam ne xale dina ko def te dinañ ko suturaal defaral ko ba mu set ba baax ñu indiwaat ko fii daal macha allah xale bi fu jógee ba dem euh, élémentaire même école yi dem yëpp xam nañ kër ci lo parce que xale bi dina am base dina yaru dina éduquer dina am vie groupe ba pare dina fi jëlee na xam-xam macha allah parce que fii la grande section de kër ci lo xale yi fiy jógee yëpp dañuy bind seen sax fii ak fin macha allah école bi daal parent yi ñoo ko waxal seen bop parce que soo xoolee on est au mois de mars mais soo xoolee tableau bee nekk euh, en grande section yaa ngi xale ñu ngi bind euh, chiffre de kon nga xam ne ñun macha allah ñun dañuy jàngale waaw. waa léegi xale yi nga xamante ni ñu ngi solu ñii solu lébu ñi ñii militaire ñii ay ñii ay euh, sage-femme ñii ay hôtesse de l'air ñoom xale yi ci seen bëgg-bëgg la ñuy sukkandiku solal leen loolu wala xale yi ñoo am envie solo loolu. waaw en général xale yi ñoom ñooy am envie solo parce que ngay dékku naan damay wax sama yaay tey policier laay solo ñii wax dama bëgg wax sama yaay man docteur laay solo léegi na su ko defee ku ci nekk dama la naan soo demee waxal sa yaay li nga bëgg a solo parents yi macha allah ñoom ñëpp kaske na ku sa doom ne lii laay solo bàyyi faal nga solo ko bàyyi faal ku ne policier nga solo ko policier ku ne militaire nga solo ko militaire am na ñoo xam ne seen culture nañu bëgg par exemple ne Maguette Mende mi xam ne moom njaago la tey déguisement njaago la def waaw macha allah am na ñoo xam ne ay pël nañ déguisement pël la ñuy doon am na nag koo xam ne mooy hôtesse de l'air la tey dafa ñëw ak valise am xam naa ñun ñëpp tey aéroport nañuy jëm fa tabaar xale daal macha allah tey même man mii seen maîtresse xàmmewu ma leen dañoo yaañ bravo aux parents parce que déguisement xale yi moom ñoom ñoo ko def indil ma leen kontaan na vraiment bravo aux parents d'élèves dëkkër ci loolu macha allah waaw ah, ok kon parents yi nga xamante ne jotoon nañoo ñëw fekkante wuñ fekk ñun ah jardin bi dëgg yàlla ah, madame. Euh, Tata Ami Sarr Tata Ami Sarr Tata Ami Sarr madame Niang Tata Ami Sarr madame ñaa mu ngi veillé ci xale yi bu baax a baax a baax a baax vraiment ñun kontaan nañ ñun ñi nga xamante ni ñoo ñëwoon teewee affaire bi vraiment kontaan nañ bu baax a baax a baax ñu lay sant di la gërëm di la laaj sa dernier mot. merci xanaa di leen di ñaanal di NITV e Kaolack Kaolack euh, TV. Kewlax TV di ñaan suma parents d'élèves bi d'ailleurs maa ngi ko wax si group euh, école bi na ñëpp seetaan Kewlax TV xool waa ci Thilotène dañuy jaar Kewlax TV ñu gis seen xale yi seen façon solo si Mardi digra xanaa di gën a ñaax parents yi puisque euh, vu lu xew léegi si période bi ñu nekkee euh, sàcc xale yi tout ça ma gën a ñaan ñaax parents yi pour ñu gën a veiller si xale yi suñu wàccee mais si au niveau de Kër Cilom macha allah ñun moom ñi ngi def suñu kenn lay kàttan yàlla mooy sàmm ñi ngi ñaan yàlla ñu yàlla sàmmal xale yëpp